أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله الله أكبر
الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من سرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مدل له ومن يدلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا بلغ رسالة القرآن وأدى أمانة البيان ونصح الأمة ومهوى الظلمة وكسف الغمّة عن هذه الأمة وتركنا على مهجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا حالك فصل اللهم وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين عباد الله mbokk yi ci yàlla tabaraka wa taala ginnaaw ba nu tàmbalee ci sunu turu borom di ñaanal sunu yonentu muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam yal na ko yàlla dolli xéewal te musal ko ajjuma bi paase dafa am ab laaj bu rotoon mu doon maa huwa aksaru shay maata fi mujtamaina ana yan mbir yoo xam ne tey ci biir société jullit yi yoo xam ne jullit yi ñàkk nañ ko bokk na ci tontu yi ñu waxoon bi ci njëkk bi ñu ñàkk nga xam ne dee na tamaaman ci biir société bi néew na tey luñ koy gis ci nit ñi mooy as sidq dëgg tey bi iznillah dinañ jël ñaareelu tomb bi muy alxaya kersa lu kenn mënta weddi moo xam kooku di weddi noon la moo xam soppe la mooy kersa dafa jeex ci société bi ñuy wax société sénégalaise te xam ngeen ne kersa bi ko al imam ibnul hajar al asqalaani al hafiz di ko firi ci téereem boobu tudd al fathul baari dafa ne huwa xuluq huwa xuluqun yahmilu ala ityaani alhamid wa tarki alqabih al imam ibnul hajar bi ñu ko waxee lan mooy kersa mu ne kersa jikko la joo xam ne ab jullit daf koy jikkowoo mu yenu ko ànd ak moom di ko yóbbu ci jëf jëf yu baax bàyyi lu bon waaye xam ngeen ne jikko boobu tudd kersa tey jeex na lu dul illa man rahima rabbuk lu dul ci ay nit yu néew yu ndaw ci ay mag wala ay góor wala ay jigéen yu tuuti moo des dañ may nettali sax lu soriwul dara fii ci ginnaaw jumaa ji benn xale bu jigéen bu amoon kersa rus lool benn bis yaayam ne ko yow di nga fi yàgg de doo gaaw a sëy yow sa kanam gi nga fas nii benn góor ñemewu la di nga fi yàgg man bi ma tolee ne yow dama daan lekk sama ñaq bootaay man bi ma tolee ne yow góor ñu bari lekk naa seen xaalis waaye yow yow de doo dem ay weer xale bi def li yaayam bëggoon mooy fecceeku dindi kersa gi di sol yu bon di fréquenter xale yu góor yi ñu ñu ëmbal ko kooku sababu ñàkk kersaam ak mbonam fan la bàyyee ko mooy ci way juróom loolu tey moo bëri ci ñun ku bëgg a baax di nga gis ñu ne ah kii day wala di nga yàgg même boo nekkee benn ouvrier bu jub di liggéey liggéey bu sell wala nga nekk commerçant nga bëgg a set bëgg a baax da ngay gis nit ñi ne yow doo gaaw a bëri la de yow de doo gaaw am dara parce que dëkk bi ku fi baax doo am dara ku fi am kersa doo am dara kon fuñ jëm wa qad su'ila an-nabi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam an al-haya sahabatul kiram ridwanullahi ta'ala alayhim ajma'in dañoo laaj yonent yàlla muhammad alayhi salatu wa salaam ñu ne ko yow yonent lan mooy kersa qaala istahyu min allahi xaqal haya ngalawaay rus leen yàlla dëggi-dëggi rus laaj leen rus leen yàlla dëggi-dëggi rus sahaaba yi ne yenent waaw nan la ñuy rusee yàlla tabaraka wa taala mu ne ngeen wattu bopp bi ak yi mu àndal ngeen wattu biir bi ak yamu denc bopp lan la àndal bët nopp gémmiñ bakkan ngalawaa yow julli bi rusal yàlla ci say nopp bul déggal nopp yi lu yàlla sib lu yàlla bëggul ngalawaay bët yi rus ci yàlla bul ci xool lu yàlla bëggul gémmiñ gi kazaalik bul wax bul lekk lu ñu sib lu yàlla araamal noonu la ab jullit di rusee yàlla dëggi dëggi rus ci boppam ak la bopp bi yóbbaale rus leen yàlla ci seen biir ñu bari ñu alku tey ci jamono mooy seen biir a leen alak faaleetuñu dafa haram faaleetuñu daf ko sib faaleetuñu dañuy buub rek di dugal ci suñuy biir koo wax mu ne naa am lu ma lekk naa am lu ma yóbbu kër ga hatta bu xaraamee naa am lu ma yóbbu kër ga ndeysaan yal na yàlla yërëm jigéen ñi ansaar démb bu góor bu góor daan xëy di génn këram soxna si day jàpp loxo bi ba ci bunt bi mu ngi xëy di uti lu mu indi ci kër gi soxna si xool ko ba seen bët dina jàkk mu ne ko ragalal yàlla ci ñun mën nañoo muñ xiif waaye mënuñoo muñ safara bul indi ci kër gi lu araam loolu la gaay yi jigéen ñi daan dénk démb seen borom kër yi mën nañoo muñ xiif waaye mënuñoo muñ safara kon kër gi loo fi indi rek na dagan ba nu tàmmee indi yu araam ci sunu biir kër xataa muus yi ci kër gi sax déggalatuñ ñu lépp la jikkoom yàqu ak ñun lépp la jikko yi yàqu ak ñun lu tax ndax lu dagan moo dugatul ci kër yi mbokk yi ci yàlla fa hada huwa alxaya lii mooy kersa rus yàlla dëggi dëggi rus lu bari ci nit ñi nag dañuy jaxase kersa ba léeg-léeg mu yóbbu leen ci ñu koy jaxase nga gis waa ji noppi diineem sax xamu ci dara waaye du laaj boo waxee ñu ne non dafa bëri kersa déedéet loolu moom ak ndof la wala mu gis lu bon ñu ne dafa am kersa ba mënu koo tere biir këram waaw wala mënul digle lu baax ci biir këram dafa am kersa ba day rusayee jabar yi fajar jógal julli loolu ak ndof la loolu du moom du ak nite ab jullit kersa du ko teree laaj xam-xam inna allaha la yastahi an yadriba mathalan ma ba'udatan fama fawqaha yàlla ci boppam subhanahu wa taala moom mu jàngal ñu sunu diine du ko tere mu joxe misaal sax ci yoo ni yoo ñàkk njëriñ ni mu yaa fuuse ni mu yambare yàlla jox ñu ci misaal lu tax yàlla jël misaal joxe ci ma bauda fa ma fawqaha parce que yoo munoon nañ ne yàlla munoon naa joxe ñay parce que yàlla ku mag la yàlla ku rëy la kon na joxe misaal ci lu rëy waaye yàlla bàyyi fa yooyu yëpp daal di indi yoo pour jox ñu misaal ñu xam ne sunu diine sunu kër yar sunu njaboot soxna si doom gi biir dëkk bi kenn warul am kersa ci masala diine kenn warul am kersa ci digle lu baax kenn warul am kersa ci tere lu bon loolu moom kuñ ne dañ ci am kersa kooku nañ ko xoolaat kooku wérul mbokk yi ci yàlla kersa كان الرجل من الأنصار يعاتب أخا له ويلومه على شدة حيائه ويطلب منه أن يقلل من هذا الحياء benn waay ci waa ansaar da doon xas mbokk jullitam lan mooy sikk mbokk jullit bi nee na ko da ngaa bëri kersa sa kersa gi dafa ëpp ci biir xas yi mu ko doon xas yonent bi alayhi salaatu wasalaam daal di koy dégg wa marra rasul sallallahu alayhi wa sallam fa samiahuma yonent bi romb rek dégg leen mu koy xas ci ñàkk néew gi mu néew ak gàttañ lu bi mu gàttañ lu ne dafa am kersa lan la yonent bi wax waa ji koy xas dahu bàyyil jàmbur bàyyil kii fa inna alhaya min al iman bàyyil kii ngay wax ndax kersakat ci gëm yàlla la bokk waaw wal xayaa juz'un min al iman kersa mbokk yi xaaj la ci ngëm yàlla ngëm yàlla bu doon ñaar ñu koy xaaj danañ fekk benn genn wàll gi mooy kersa beneen genn wàll gi nokk ngëm moo tax ñoom ñaar ñooy ànd ay xarit lañ su benn bi demee rek beneen bi dem foo gis ku ñàkk kersa amul ngëm yàlla foo gis ku am kersa dafa am ngëm yàlla xool leen tey nag sunu société daanaka mun nañ ne kersa ndoxum kersa jeex na ci kanam yi jeex na ci xol yi lu tax parce que ngëm moo ko doon garder te ngëm amatul moo tax kersa dem na da ngay dégg sax xale bu góor bu naan dama naan tat wax paa bi raay tat laay def wax paa bi raay mbokk yi yow bi nga nee cocc munoo wax raay nga ne da nga naan tat wax raay ah nanu delloo si sunu xel sunu bopp ab julit day am kersa yonent bi alayhi salaatu wasalaam nee na al iman bid'un wa sittuna shu'ba wal hayaa shu'ba min al iman yonent bi nee na ngëm yàlla boo ko doon xaaj di ko def ay daggit di ko teg ci ay barab ay xur di nga fekk mu nekk juróom benn fukk waaye mu ne di nga fekk ngëm ci parti yooyu ñuy xaaj di nga fekk ngëm kersa nekk ci kersa benn parti la ci loolu ñuy xaaj waaye mbokk yi ngëm yàlla bal alxaya wal iman qurana ñoom ñaar ñooy ànd wa asdiqa ay xarit lañ ñoom ñaar la yatafarraqaan du ñu taqalikoo moo tax yonent bi alayhi salaatu wasalaam ne ngëm yàlla ak kersa ñooy ànd ñoom ñaar fa ida rufia ahaduhuma rufia al axar su bi yëkkatee benn bi rek beneen bi dem kon nan delloo si suñu kër yi kersa nanu yaraar xale yi ci kersa rawatina jigéen ñi xool leen tey mbeddi Sénégal gisatu leen jigéen ju sol yére bu baax soo xëyee suba ba ngoon di wàññ bu fekkee téeméeri jigéen nga lim juróom-ñeent fukk ñeeg juróom-ñeent ñëpp lu bon lañ sol ba pare kersa jeex ci ñoom boo doon woo kenn sax dégg ngeen histoire bi ñu doon nettali Maroc góor gi nekk ci kaar xale bu jigéen bu sol lu bon dugg mu koy waar di waxtaan ak moom pour mu sol lu baax mu génne portable am ne ko am woowal yàlla nga wax ko ko woowal yàlla nga wax ko ko waaw woowal yàlla nga wax ko li ma def foofu la nit ñi toll nag tey ñun fii koo ci wax dina la tontu tontu boo xam ne bu ëllëgee danga naan patt noppi dootoo gis keneen di ko jéem a wax lu baax waaye nag loolu du tere ñii woo nit ñi jëme leen ci yàlla ak duwaat ñu noppi ndax man raa minkum munkaran moo tax ku gis ci yéen lu bon fal yugayyirhu bi yadi dindi koog sa loxo feeg yaa ngi koy mën a dindeeg sa loxo su fekkee dem nañ ba mënatuñu dindi lu bon ak sunu loxo xanaa yonent bi boog nee na ñu wax kook sunu làmmiñ waaye bu nu demee ba mënatuñoo dindi sunu loxo mënatunoo wax sunu làmmiñ yonent bi nee na ngeen naqarlu ko ci seen xol waaye foofu ngeen di yegg ci xol nag toog di ko naqarlu wa zalika adaful iman yéen a ngi ci ngëm gu faible ngëm gu yambare ngëm gu yaafuus foofu lañ toll nag tey nga gis borom kër ci këram mu nekk ci adaful iman mënul dara ci kër gi te loolay doy waar mooy jëndi dund bu ñu raflee mooy waddu bu ñu xiifee mooy jox ñu lekk bu ñu feebaree mooy faj waaye mënta am jóg leen julli fajar mënta am musique bu mu jub ci kër gi mënta am tubéy bu ko xale bu jigéen sol ci biir kër gi kenn mënu ko boo waxee rek ñu ne ah léegi de dañoo tëx kenn mënatu ci dara ba léegi loolu mooy proverbe bu nga xam ne moo sax qaida la léegi ci biir kër yi qaida la kër yi kenn mënatu ci dara te pourtant boo wàccoon ñu ne tey de togguñu añ te bi ngay dem bàyyi nga fi 5000 dépasse nga wàcc ñu ne noo togguñu añ nga ni lu tax ñu ne danoo sonn te dañuy noppalu borom kër googu nan lay def nga wàcc sa soxna ne la tey togguma reer lu tax mais journée bi tey dañuy noppalu nga xëy ñu ne kenn du ndékki tey li benn procureur doon wax tribunal mu ne lu nekk fii ci Sénégal indil nañ ma ko naa naa ko àtte ba mu des sama soxna si du julli loolu de àtteeguma ko sama soxna si du julli lu nekk nag àtte naa ko est-ce que yaakaar ngeen ne dossier yooyu bariwul ci biir kër yi est-ce que yaakaar ngeen ne sama njaboot gi duñu julli dossier yooyu bariwul ci biir kër yi est-ce que yaakaar ngeen li ngeen di gis ci mbedd yi nii dossier yooyu bariwul ci biir kër yi aha kay waaye lu tax mooy mbirum àdduna moonu yitteel mbirum alaxira yitteelatunu benn cheikh daf ciy joxe misaal bu dund bu doy waar dafa laaj benn borom kër ne ko sa doom ji boo ko yóbbee école mu jàng ba jouru examen jot nga yóbbu ko ba ci école bi muy defee examen nga bàyyi koog ndékki bàyyi koog paas nga dem mu ñëwaat midi ne la papa nga ni ko waa mu ne la ñetti matière defuma ko ci examen bi nga ni ko lu tax mu ne gis nga fi nga ma bàyyi woon da ngaa dem rek ma nelaw ba heure bi jot ba gaa yi dugg ba def ñetti matière ñu doog maa yee doom jooju yéen ñi julli si jumaa ku ko jur noo koy def tontu bi mu ngi ak yéen ci seeni xol ak seeni xel ku jur doom jooju laa wax nan nga koy def bu doon mag bu war a def BFEM wala bac nga jaar ak moom foofu ba jour bi mu war a def bac mu ñëw ne la dama tardé ñeenti matière lu tax non dama biddanti doom jooju li muy ponkal ponkal looy jëflanteeg moom yow bi cheikh bi waxee loolu góor gi góor gi ne ko bu dee ku ndaw ki dinaa ko dóor ba damm ko bu dee ku mag ki dama koy génne kër gi mu ne ko waaw kon sa doom bu jàkk bu tardé fajar jàkk loo koy def cheikh bi daal ne ah loolu de wax dëgg yàlla moom eh, loolu de est-ce que daal di noppi ndeysaan mu ne allahu akbar xoolal dóor gi ko ci mbiru àdduna bàyyi mbiru alaxira lan lañ koy laaj ñaar yi yowmal qiyaama ñaar yi lan lañ koy laaj bac bi lañ koy laaj wala BFEM bi lañ koy laaj wala COP bi lañ koy laaj wala julli ji la ñuy laaj yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam nee na li ñuy njëkk a laaj yowmal qiyaama li ñuy njëkk a laaj mooy assalaa su julli gi baaxee yonent bi nee na lépp baax na su julli gi bonee lépp bon na yal nañ yàlla woon dëgg mu wërsëgal ñu topp ko yal nañ yàlla woon neen mu wërsëgal ñu sori ko الحمد لله وحده ولا نعبد غير مخلصين له الدين ولو كره الكافرون عباد الله كان النبي صلى الله عليه وسلم أسد الناس حياء وكان إذا كره شيئا عرفه الصحابة في وجهه وكان إذا بلغه عن أحد من المسلمين ما يكره لم يوجه له الكلام ولم يقل ما بال فلان فعل كذا وكذا بل كان يقول ما بال أقوام يصنعون كذا وكذا دون أن يذكر اسمه صلى الله عليه وسلم بقي يننت عليه الصلاة والسلام كبري وون كرسلا لولا تخ daawul xool nit jëkk bañ a xef moom yonent su siboon dara bañ ko bu déggoon dara bëggu ko wax walla dara jëf saxaaba yi dañuy sentir ki jëf-jëf ji day sentir ne man def naa lu yonent bi bëggul parce que ci kanam gi lañ koy xàmmee ndax kersa gu mu am waaye bokk na ci na mu doon wàññee nit ñi di leen corriger musul ñëw kaw min bar wala mu toog ci pénc mi ne yow diw li nga def nag yonent bi nekk na ci jumaa ji di xutba benn waaye dugg bopp baa ngi jaxasoo mel ne bopp bom marle waaw da ngay gis tey ab jullit buy roy bom marle ci jax kawar gu jaxasoo baramu di dof doflu te lu doy waar yenn saa yi nga gis ku def loolu ba pare nag sol mbubum uti jumaa loo fay uti soo xasee ne yaa ngi roy ay yahuut ak i nasaraan looy doyee julli yonent bi ba mu séenee waa ji mu ne waaw lan moo dal nit ñi ba duñ defar seen bopp yi man kaana lahu shaarun fal yukrimhu waay ku amati kawar gu mel noonu teral ko teralal kawar gi mooy raxas ko ba mu set nga peñe ko ba mu nooy nga diw ko waa ji daal di jóg génn ci beneen buntu dem defaru bi waa ji duggaatee yonent bi xam ne ne moom la yonent bi ne du lii moo gën ngeen bàyyi seen bopp yi mu mel ne bopp seytaan yonent bi noonu la daan wàññee nit ñi ndax kersa gu mu am musul joxoñ nit baaraam ne ko yow waaye danaan lu tax nit ñi lu tax nit ñi di def nangam ak nangam nga xam ne yow ci nga bokk su ngeen gisee ci mazhab yi ñii ne yàpp gëléem day yàq njàpp ñii ne yàpp gëléem du yàq njàpp ñu divisé wu ci ñaar ngiru Malik ñu ne ku lekk yàpp gëléem sa njàpp yàquwul Shafi wala Ahmad ñu ne sa njàpp yàqu na dafa am ñu lekkoon yàpp gëléem ba pare am ci ñu lekkoon yàpp gëléem gi kenn ku njàppam yàqu mooy fi ñu doon lekkee reer bi la ngelawal au lieu yonent bi ne ko diw jógal jàppi kon gaa ñi xam lim def mu ne yéen ñi doon lekk yàpp gëléem bi dem leen ngeen jàppi moo tax ñee ñu ne ku lekk yàpp gëléem jàppi ñi ne déedéet dafa am ñu ci seen njàpp yàqoon yonent bi ne leen dem leen ngeen jàppi ndax kenn la waaye bëggul wax kenn ki yow la gis ngeen yonent ndax kersaam gu bari sallallahu alayhi wa sallam mbokk yi al muslim yata'addab ma allah jullit day am kersa ci yàlla nit ñi lan moo leen dal ba rusatunu yàlla ñu ngi rus nit ñi yastaxfuna min annaas tey bu benn waay taxawoon fii ci ñun ñi kenn du futteeku def yaramu neen wala ngay def lu bon waaye boo wéetee rek génne sa ñàkk kersa ñenn ñi sax dem nañ léegi ba faaleetuñu nit boo waxee kenn li mu ne la xoolal man dunduma leen dunduma kenn aha kay foog nga dund nu ndax boo faatu woon léegi ñu diri la indi ci jàkka yi ñëpp bàyyi seen soxla ñëw dund la kon foog ngi dund nit ñi biñ lay ngénte ngay juddu di génn ci sa yaay di ñëw àdduna nit ñi dañ laa dundoon bu mercé yi ne woon dund nu liir bi dund nu ko moom ndeyam fu ñu jëm lu tax yow nit ñi dund la ba nga toll ni nga toll nga ni dundatuma kenn di fetteerlu di dëgër bopp dindi kersa ci yow jeexal jom jeexal kersa ci sa xol ak ci sa ngëm-ngëm ak ci sa kanam tey li ñuy dund du dara lu dul li ñu yàlla nattoo mooy ñàkk kersa moo fi nekk kenn du sotul nit ñi ki ñu njëkk a ñeme mooy yàlla subhanahu wa taala wallahi yàlla la njëkk a ñeme di def lu nu neex fetteerlu di dëgër bopp loolu lan tàmm di ko tàmm ba génne ko nag léegi ci biti waaw looloo jaadu de su fekkee léegi rusatunu yàlla yonent bi da doon wax ndeysaan su gaa yi ñëwoon di nuyoo yonent bi tëdd ku jóg rek noonu mu tëddee la lay di nuyoo bu Ousmane nee tëll ñu ne yonent Ousmane dugg si na mu jóg toog ñu ne waaw kii nag mu ne kii malaaka yàlla yi ak yàlla sax dañ ko rus Ousmane ibnu Affan xoolal ñun ñun rusunu dara lu neex wax rawatina nag waa ji bu amee doole wala mu am kattan wala wala wala lu ko neex def moom kenn du ko wax dara mbokk yi nanu rus sunu boroom nanu rus jaami yàlla yi malaaka yi ñu ngi ànd ak ñun nanu rus xoolal Ousmane ci kersa su guddi jotoon Ousmane di tëdd di simmeeku wala muy simmeeku day fay lamp bi xanaa doy na mu dugg ci biir mbàjj mi doog a simmeeku ñu ne Ousmane nag mu ne malaaka yàlla yi laa rus bëgguma ñu gis samay awra parce que malaaka yaa ngi ànd ak ñun ñun nag moo tax ba ñu violé yàlla violé malaaka yi kon jaamu yàlla yi suñu yoon nekk ci léeg sax nga gis ku yor cigarette am di xër nit ñi ñu ne waaw mu ne gaañ xoolal man nii laa ko mënee ah ñu ñu doy waar ngay gis Sénégal ñu doy waar dafa mel ne ay doomu aadama nekkatuñ ci kaw suuf li cheikh bi di wax nee na wallahi léegi gisatu leen sax xaj yuy sëy ci mbedd xaj yuy sëy ci mbedd léegi nit ñi ñoo koy def bi nit ñi ñëwee di ko def xaj yi ne oh kon ñun baax na quoi ñun dootuñu ko defati waaw léegi nit ngay fekk ak nit guddi wala ay timis rek ñu tafu ci pot lampe wala ñu tafu ci benn tabax bu pareegul bi xaj yi commencé gis nit ñi di def loolu ak ginaar yi séq yi ñu ne bon kon ñun vraiment ñun wàcc nañ liggéey quoi nan bàyyi loolu ak nit ñi yàlla moo ko wax subhanahu wa taala summa radanna asfala safilin ixwata al iman nanu rus yonent bi alayhi salatu wasalaam jullit nan lay rusee yonent xoolal yow mi nga xam ne benn waay moo la ne diine ji lii ngay def nga jël ko loolu mooy yow rusoo yonent suñu rusoon yonent ñun ñëpp li yonent bi indi la rek la nii def dinaa ci joxe misaal bu ndaw rek misaal nag rek laa ciy joxe bu ko kenn yóbbu ne imaam ma wax nangam julli xabdu ak julli wàcce loxo yow mi wàcce loxo ku la ko wax benn waay nga gis ne moom noonu la doon def nga ni man bu may julli noonu laay def tee ngaa rus yonent bi yàlla yónni woon diina ji indi ko mu julli xabdu ñaar ñi kan nga war a rus yonent ak waa ji ndax waa ji ab yonent la yàllaa ko yónni ku baax la de dëgg la waaye nag moog yonent ku gën a baax moog yonent ku gën a baax moog yonent ku gën a baax waaw léegi yow nga ni man wax dëgg yàlla diw moom nii la doon def man noonu laay def diw moom mu doon def noonu ak yonent bi demal nga gëstu ji ndax yonent bi moo defoon nii wala defu ko bu leeree ci yow lu la war tee ngaa rus yonent bi defoon li mu def tey bu yonent bi doon dund taxaw xanaa di nga rus a jàpp ci loxo waa ji de bàyyi yonent bi nan rus yonent bi ci li mu nu indil jële ko ci borom bi mu doy nu moo mbokk yi buñ demee tey ba yonent bi li mu indi doyatunu est-ce que rus nañ yonent nanu rus yonent bi ci jëfe sunnaam ci jëfe ay ndigalam bàyyi ay tereem alhayaau min annas nan rus nit ñi nañu rus nit ñi nanu dellu siwaat ci jikko diine ci jikko lislaam jikko ngor jikko jullit mooy am kersa rusa wax yenn yi rusa jëf yenn yi rusa dem yenn barab yi rus ñu dégg ci ñun dara yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ba muy wax ngëneelu kersa mu ne alxayaau la yaati illa bi xayr alxayaa kulluhu xayr kulluhu yonent bi ne kersa yéppam yiw la kersa du indi lu dul lu baax borom xam-xam bi ne ida lam taxsha aqibata allayaali walam tastahi fasna ma shit fa wallahi ma fi l ish xayr wala dunia isa zahaba alxaya mu ne boo rusatulee ragaloo yàlla xalaatatoo guddi ak bëccëg xalaatoo ne di nga dugg bàmmeel dafa lu la neex su fekkee dematoo ba xalaatoo yàlla xalaatoo bëccëg a ngi ñëw ñu génne la ci sa kër gi yóbbu la ci morgue bi sang la sang la teg la ci oto yóbbu la ba ci armeel yee gas ba mu xool dugal la xalaataloo loolu mu ne dafa lu la neex waaye mu ne wallahi maa ngi leen di gëñal ci yàlla dund gii ñuy dund lu baax munu fi am su fekkee kersa amu fi su fekkee dootuñu rus su fekkee kersa jeex na Sénégal dootul baax chaque jour ma wax leen ko dañ naan alternance alternance ñu ngi alterner rek te léegi ba léegi amaguñu alternance lu tax inna allaha la yugayiru ma bi qawmin hatta yugayiru ma bi anfusihim musidal fulɓe aljuma oɗo jawtuɗo en siftinino dental ngal hande ko rendo ngo waasi en haalino ɗum ɗon ko adi hen woni gonɗuɗe hande nuqta mo gaddonɗen bandiraɓe woni alhaya woni neɗɗo o yo hersu o hersa haalde konngol ngo allah yiɗa o hersa haalde walla o waɗa golle ɗe ngannduɗa allah yiɗa alimam ibnul hajar al asqalani nde o namda holko woni hersude o wi hersude ko jikko mo ngannduɗa ina rondo neɗɗo o julɗo o kala ɗo yiya ko moƴƴi tan o waɗata so tawi ko golle pankare kala ɗo yiɗa yiya ɗum o ɓattatako kala ɗo yi- soyni ɗum o dogat nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam nde o firtanta sahabaɓe holko woni alhaya woni hersude o wi ko ndena hoore nde e ko hoore nde renndi ndena reedu ndu e ko mofti ɓe wimo hoore nde holko renndini o wi gite noppi hunuko hinere ɓe mbimo gita de o wi julɗo o yo hersu e ƴeewde e gite makko ko allah yiɗa yo hertu nande e noppi makko ko allah faalaka ko allah yiɗa yo hirsu haalde e hunuko makko o wowlo hen konngol ngol annduɗa allah yiɗa ko ɗum ɗon woni hirsude nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam o wi gonɗingol allah e hersude kanje ɗiɗi kanje yadata al imanu wal haya o wi kala ɗo goto o tawa goɗɗo o tawata toon par ce que koɓe musidɓe kono so goto o yeehi goɗɗo o yeehi ndenen diina men bandiraɓe ndenen hoore men ndenen ɓesguji men ne hen ɓe e hersude ne hen rewɓe men ina eɓe ɓorno comci timmuɗi jettiɗi comci juulɗo hande sen ƴeewi renndo men ngo en taway ɗo ɓurɗen tawude hersude ina yeehi en tawat koye rewɓe ɓe e sukaɓe ɓe holko waɗi ɗum ko enen woni ɓe tinnaki e maɓɓe en ƴewata ko ɓe haalata en ƴewata ko ɓe gollata en ƴewata ko ɓe ɓornoto en woppa ɓe tan ɓe wayene baali e nder galle ɗum wona ko l'islam yiɗi yo allah aynu en reyna en fawa en e sirat almustaqim allahuma arina alhaqa haqan warzuqna ala tibai وارنا الباطل باطلا وارزقنا على اجتنابه اللهم يا مثبت القلوب ثبت قلوبنا على طاعتك اللهم فنسألك أن تردنا على دينك مردا جميلا اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة اللهم اغفر لنا قبل الموت وارحمنا عند الموت ولا تعذبنا بعد الموت برحمتك يا الراحمين عباد الله يقول الله تبارك وتعالى في محكم التنزيل والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله